auzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokku jullit yi mbokku taalibe yi rawatina waa Washington ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar di leen yëgal màggal gi te di leen xamal ni ñu ciy woo ñëpp te comme màggalu daaw dafa kawe woon lool te yoon wi moom tànk kanam la ren gi jël nañu saal bu mag a mag ndax ñu ngi waajal di am gan yu am solo yu jóge fu ne pour ñu fi Washington màggal say ñun kon nag ñu leen ci woo di leen siyaar di leen sant ci màggal bi ñu weesu di Bamba Day bi nga xamante ni si ñun ñaari màggal nañu sëriñ bi baaxee mooy màggalu Bamba Day July 26 ak màggal bu mag waaw jërëjëf ñu leen di ci woo bu baax a baax a baax màggal gi nag moom mooy lépp waaw di ci woo ñëpp ku ci raw raw kon nag ñu jox seen kàddu gi sëñ Mamour Mbacke waaw jërëjëf Mbacke. jërëjëf kon bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Euh, gannaaw bu ñu leen nuyoo siyaar leen euh, ndokkeel leen ci weeru safar yu nekk di safaru xayra di siyaar sëñ Mountakha Bachir mi jiite yoonu murid wépp ko ñaanal mu gën a yàgg gën a wér yàgg noo yàgg bu baax a baax kon fii jëwriñ daanee la ay kàddoom rek lay tàmbalee samay kàddu mooy Serigne Abdoulaye Pelé Seck moom mooy président fondation Khadimou Rassoul fii ci Washington DC eh, moo nekk nii ci sama ndeyjoor ki nekk sama mooy Serigne Moustapha Fall moom mooy secrétaire général fondation Khadimou Rassoul ñu nekk fii ci Washington su ko defee eh, lii sabab jataay bi rek xam ngeen ne mooy bisub bis yi moo yegg si bisub bis yi nag mooy bisub Seexul Xadim bi nga xam ne moo ko joxañaloon boppam ne képp koo xam ne sama mbég sa mbég la bis bii bu la fekktee ci kaw suuf na ma ci santale yàlla sama borom tabaraka wa taala ci bernde bernde nag ne woon li ko dale ci ganaar ba ci giléem daal ni xeebuma ci ganaar waaye nawuma ci giléem kon lu waaye am na ko def ci bis bi ah, kon nag bokk yi dafa am loo xam ne nag dañ ko wara gën a euh, leeral nit ñi bu fekkee da leen ump damaa defee nit ñi nga xam ne ñi ngi jàmbat ay jafe-jafe saa su nekk euh, moo xam ci wàllu wér-gu-yaram la moo xam ci wàllu koom la moo xam jafe-jafe bu la mën a arrivé ci sa dund damaa defee seen xel da daj màggal gi màggal gi bisub solution la màggal gi bu la yàlla mayoon benn dërëm sax def ko ci bàyyee ak sëñ bi nag xool ba xam nu muy demee maanaam xoolal maanaam amul lu gën a gaaw màggal gi faj ay aajo lijjanti ay mbir yu të màggal gi moo ci gën a gaaw kon bokk yi nañ bàyyiwaat xel bu baax ne bis bii la Sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul euh, joxoñal boppam ne nañ ko ci santale yàlla kon bis la boo xam ne ni ko jëwriñ waxee ku ci raw raw Sëriñ Saliou Mbacke daana wax ne fu fi ñaar ànde kenn ki di ko fonk kenn ki di ko ñàkk fonk duñ ñàkk ñiy gis ki koy fonk li muy tiimi ko ku dul fonk ba aljanna mm-hmm. kon bokk yi génn leen li ci poos yi te def ko ci bis bi mm-hmm. alal ji nañ ko yemale ci poos yi te bañ koo def ci xol yi mm-hmm. poos yi doy na ci xol yi nag nañ ko dugal sëriñ bi soo jëlee alal ji yemale ko ci poos yi kon bu sëriñ bi soxlaa alal ji dana yomb lool ci mu génn dem ci liggéeyam sëriñ te loola nag moo lay jëriñ ah. denc ko ci xol moom du la jëriñ dara kon ngallawaaye nañ xam ne bis bii mooy bisu traite bi li ñuy wax traite mooy bis bi li ngeen am ci compte yeeg euh, euh, euh, coffre fort yeeg natt yeeg yépp génn leen ko def ko ci bis bi wallahi wa rabbil ba mën naa leen a garanteel ne képp ku ko defee nii bu màggal gi jàllee da nga xam ne sëñ Tuubaa dong nga jaara lebal mm-hmm. ndax moom ñemewul bor dafa am bay mm-hmm. loolu daal laa doon soññe ndax fi mu ne saal bi topp matagut mm-hmm. ñun waa Washington cinq cent dollars yii ñuy laaj tuuti na nañ ko daabal mhm. sing Sidi muhtar bi mu fi nekké lam daan joxé ci gamu eh, diko jox julit yi bi sing Muntaxa basirou diké daf né lu sing Sidi muhtar doon def rek nañ mako defal ñaar kuñ daan jox wenn nak nañ la jox ñaari nak wala ñatt kon bis dafa ba xamné birum sing sëñ kanam la jëm jëmut gënaaw mhm. kon bokk yi 500 dollars yi ab lim dong la ab symbole mais ku man 1000 def ko ku man 1500 def ko ku man 2000 def ko mhm. kon nañ double liñ wara def bañ ma la def liñ wara def saal bi 15000 dollars la lepp yok addi ji war a dem ci sëñ Muntaxa demagul hmm. kon waaye ngal xanaa loolu doo ko seetaan hmm. te bëgg say mbir jeg yow hmm. yow boo boo amee yitte dis ko yàlla dis ko sëñ bi te bu yàlla soxlaa sëriñ bi soxla nga tëye li nga yor loolu mënta ne na njëkkati koom bi te def ko ci bisub sëñ Tuubaa bii di bisub sant yàlla wasalaamu aleykum wa wa barakatu